moom moom jooyu jooyu victime defu ko dara jooyu victime wàññiwu ko dara c'était c'est pour la première fois man ma wax ci rajo parce que bu may wax damay jooy ndax Babacar Fall li ñu def dafa métti dafa naqari waaw Babacar Fall rey na ay nit. xam nga maam ni mel si sëtam dal si kawam ñoo ko dañuy toj muy xëccante ñoom suba dafa am crise bañ jël ko yóbbu hôpital. suba añuñu reeruñu ndekkiwuñu ndax déception li may wax nii yàlla moom a tiim suba bañ pare bañ lijjantee liñ ji dañ ba pare. ba nga instant boobu lépp jënd ba ñu demee hôpital dañoo fekk nee naa la man sama xaaj desatul ci man. waaw dañ ko condamné deux ans teg ko amende quatre milliards. parce que li mu li mu daaneel dafa bari man damaa kuule tey sama kër lendemain ñu xëy daaneel ko waaw te lu rek laa booba ba ba 2013 bi muy daaneel kër booba am naa activité am naa tuuti doole. maa ngi dem di ñëw fi mu nekk nii man na mën na maa demee ci dara mënatuma ko mënatuma lijjanti dara. ñun nag on est les parents pauvres de la état du Sénégal nag ñi ngi wax ak moom ñun ay citoyen lañ comme moo comme Babacar Fall ni ñu koy jàppalee tànk leer na ñëpp ci biir tribunal bi il faut que ça soit très clair dañuy taxaw nag taxaw de dinañ ko def de dinañ xeex dinañ def lu ne parce que victime yi kenn du bàyyi ak Babacar Fall suñ ñoo nan ngay mën a tojee plus de deux cent cinquante trois kër nga toj ko daaneel ko di di bokk ak ñoom oto di taxawaal ak ñoom di bokk ak ñoom place bi ngeen di toog di defal mais ñun ñun bu ñu dul woon ay républicain rey nañ ko. Babacar Fall li ñu def dafa metti benn nit koo xam ni yow yow rek benn benn benn civil nekk ci biir dëkk ah. sonal adduna bi yëpp la mu waxoon ah pour le moment nii. pour le moment nii lii ah? ban ban réew la ah? am. ñun dëpp commencé ba tey ñu ngi teg suñuy mbir ci yoon. amul fenn parce que mënoon nañu tey di rayante ak a deewoo. di di jaay ci teg teg eh, effectivement teg nañ ci suñu bakkan sax nag mais la la la ko jar vraiment nga dee wuute ko daanaka booy xool jar ko. mais ñu topp yoon. ndax suñu président ba mu faloo 2013 dafa wax ni nul ne au de la loi du loolu la waxoon. ah, ah? waaw ñu nag looloo tax ñu topp yoon ba léegi. ñu ngi topp yoon di xaar yoon def def liggéeyam.